suñuy jaar jaar daal dañu nekkoon ndaw dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam. xanaa wax na su ko xaaritoon jar danaa ko am. abonné wu seen YouTube bu Ndiamé TV bësal na station bi ñu tàmbal la foofu nga mën a abonné wu. ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour. Auzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah mbok yi ñu ngi ziar ñep yeen ñuy safo Ndiamé TV tay ñu ngi fi ci Ngayen ci tiant yi nga xamne ñu ko organiser jaglel ko Cheikh Moussa Cissé Ndiamé borom daru ñu ko organiser nak di daara Jamaatu Rahman euh, seen njiit la di Cheikh biramba doon kenn si ñi nga xam ne nii moom ñoom la Cheikh Moussa Cissé Ndiamé borom daaru defer ba tey ñuy deferaate euh, tey nag ñu bëgg a waxtaanee ci wàllu cant bi ak wàllu organisation bi ak euh, li nga xam ne moom moo ko waral ki nga xam ne moom mooy Baye Seet Dieng di jawriñ ci daara ji moom itam Baye Seet ñu ngi lay nuyu di la ziar euh, di wax nga nuyoo dalal gan ñi. auzu billah bismillah ina walla yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi sant yàlla sun borom subhanahu wa taala euh, bi nga xamante ni moo ñu kattanal ba ñu mën a yegg ci bis bi parce di gërëm wax dëgg yàlla mbokk taalibe yi teew yëpp di leen wax rek ne wax dëgg yàlla macha allah bis bi comme ni ko waxee. ñu ngi leen di fay bu baaxa baax ñen dal ak jamm inshallah rabbi rabi billahi min seytaan rajim bismillahir rahmanir rahim eh, ñu ngi leen di fay di leen dalal ñu wax bismillah ci question yi may dugg laaj assalamu alaykum ma ngi di nuyu di leen sant di leen siyaar di leen jox seen way bis bi lu ko waral du lenn lu ak talibé bu yek ndolal ak taalibe boo xamante ni ginnaaw bu mu dajeek nit ku baax bu mu ubbi ci yàlla ba xamal ko boromam mu mën ko jaamu te du ko bokkaale ak dara kooku noonu wax dëgg yàlla e, bokkoon ci saabe yi nga xamante ni ñoom la ñoo àndoon Cheikh Moussa ci liggéey bi moo moom la ay taalibeem di delloo njukkal ci bis bi diko sante subhan sun borom subhanahu wa taala wax deug yalla bisu bisu sante yalla no comme nuñ koy tuddé rek tiant ndax jam bu yegg luñ ko liko sun borom defal sa su nek ci sante rek lañu nek ndax genn walu diiné mom sante rek la inshallah rabbi bisu bi dal tiant yalla sun borom la tek ko ci ni nga xamanteni non la ko yonentou bi diglé tek ko li nga xamanteni wax deug yalla njangalé nit ñu bax ñep non lañ tan non dañ dan topé diiné wax deug yalla lool do mo waralon bisbi. di ci delloo njukkal nag wax dëgg yàlla nit yu baax yi nga xam ne ñoo sàmm pas-pasu tawhid bii nga xamante ni moom la ñu yor ba mu yegg si ba fii nii. Euh, liñ lay laaj rek bokk na ci euh, àndub sëñ Biram Ba ak Cheikh musa euh, ku ne xam na ne Cheikh musa ñi àndoon ak moom ci jamono bëri na si ñoo xam ne bi ñuy jog di ànd ak moom am na ay jafe-jafe yu bari yoo xam ne ni jànkonteel nañ ak moom waaye moom nan la def ba. Euh, mën a dékku loolu ànd ak Cheikh Moussa ba tey euh, mu góobee ci lii mu góobee. waaw maanaam ni mu def ba mën a dékku liggéey boobu ba toll fi mu toll nii mooy ngëm ak pas-pas ngëm ak pas-pas bu xam ne bu dëggu la nekk ci moom moo tax mu mën a dem wuy ji Cheikh Moussa. ba yegg si fi mu yegg si nii tey ndaxte comme ni nga ko waxee noonu noonu la amee parce que wooteb Cheikh Moussa wuyu ko ci jamono yombatoon fit moo ko daan def parce que wooteem bi dafa tumuraanke woon woote yàlla woote xam-xam bu yegg ci yàlla jàpp jaam yóbbu ci yàlla kay mooy won lay yàlla gita ŋaas sa xol ba sar sa bëti bopp yi loolu ñu bëri seen xel mënu koon a nangu ba loolu moo taxoon maanaam woote bi ñu ko ragaloon wuyu bëri moom nag bokkoon na ci saaba yi nga xamante ni bii ba mu déggee woote bi jaral na ko mu jot sol dàllam am ay ñoñom ñu mu àndaloon dem wuy ji Seex ba tey Cheikh Moussa def ci moom li mu def ci moom ba tey mu yegg si fii. di leen wax jaajëf. buñ demee si question bu ma laaj dinaa sawar tontu ko lool parce que bis bi lu ko waral mooy sëñ bi daf ñu jox li nga xamante ni mooy li muy baatu laa ilaaha illallaah te batu la ilaha illallah bu ñu jox daf ne su ngeen tuddé batu la ilaha illallah ba nit ñu ñëw toog leen ngeen leeral leen kon batu la ilaha illallah moom rek ko wor kon Lu tax tay ji ñi jeunmal bes bi pour xamal nit ñi ne li ñu sang bi jox ay kessé la amul ben sik ne yalla la rek mo waral bes bi. bes bi cant la jëmele ci yalla waaye jaare ci sang bu tedd bi nga xam ne moom moo leen teete ba yóbbu leen ci yàlla moom suñu borom kon loolu euh, yaakaar naa ne lu rafet la euh, yaakaar naa ne mooy dëgg-dëgg diine soo defee nag comme bis bi cant la te gis nañ ci li ci organisé lim demee yëpp euh, mu mel ni niru na loo xam ne nii lu jafe la ngir organiser ko ci ci ci jamono ji surtout jamono ji ñu tollu voilà yal ngeen jàpp ne tey moom moo waral réussite bi. waaw sant sun borom li moom ndimbalug sunu borom subhaanahu wa taala dëgg la ndax ñi ko yor moom dëggu geeg pas-pas bi foo ko natt wees na ko ak mbokki jullit yi nga xamante ni wala boog mbokki taalibe yi ñi ngi ko sekkal wax dëgg yàlla kenn ku ci nekk góor nga lu ngay kéem liñ ci man donte jafe na jafe na nag waaye gaa seen bëgg yàlla ak seen pas-pas ak seen bëgg a yàlla su suñu borom moo waral kenn ku ci nekk jaf ci li nga xamante ni amaana euh, moo indi réussite bis bi te di ci sant suñu borom bu baax a baax a baax di wax rek ne ah lii moom mbir la mi nga xamante ni kenn ku ci nekk ndax góor yàlla maanaam li muy jëf da ko xam te nit ki bu fekkee ne li muy jëf damay faral di wax ne maanaam ku xamante ni yegg na ci yàlla kooku jëf ci yàlla war na ko mën a yomb kon loolu pour mu dugg ci mu réussir du jafe moom coono ji yëpp mbégte lay jee doon ci moom. ak saa yi kon macha allah liñ ci doon séntu moom kawe na jortu ci côté yépp soo defee moom bi mu ñëwee Ngayen ginnaaw bi mu jotee xam-xam bi nga xam ne moom la ko Cheikh saa jox bi mu ñëwee wooteem nan la demee wu njëlbeen wooteem. waaw njëlbeenu wooteem man man na wax sax ne ngeel bi nu wootee man dafa fekk ma génn comme niñ ko waxe dem jàngi man sama jang ci nasran la nek dekk bi ñuy wax sokon doon fa jang nasran wote Cheikh Moussa man sokon la ko déggee mo bokkoon ci ñi nga xamne ni wote bi jaxalon na ma parce que version bi mu ngi ma ñëwee ci euh, euh, dekk bi ñuy wax Dantaxun Dantaxun dëkk bi ñuy wax Dantaxun ci laa njëkk a déggee wooteb Cheikh Moussa version yi niñ koy jàllalee ak ni mu amee uute man nag ci déggin ci ni ma ko déggee woon ci ñim jàkkaloon laa bokkoon ba ñeme xuma xoon man mais yàlla di def ma dund soogoon ba joge fa ma ñib si fii fekk sang bi tedd bi di ko fi woote comme li leen Cheikh Moussa tan na len jina len da ngeen sax da ngeen meñ lolo tay leer na man di gis naa ko ci sumay beut tanef bogo Cheikh Moussa non len ñom jihon len ñu sax meñ man gis naa ko bi ma Moussa gay fi si njàng man wuyu xam-xam bi ko wuyu ci 92 may dégg ci ay jàngam toujours buy jàng muy waxtaan waxtaan wu kowe may déggul ci biir waxtaan am ma ne kooku li muy wax am na njëriñ te li muy wax heure bu ne buy buy def cant buy def kuréel li muy wax ci kaw la koy wax kii làqatuwut li muy wax dëgg la te gëm na ko mu sol sama dàll ñëw wuy si ko lam ma ñëk wax moy ku ragal du ko dékku fit ngay am jom ngay am ngor ngay am ñet yoy la ma ko allah man comme gis na lu ma jaral ma jox sol sama dalinya yi ñew ba ci yow jox la sama bop aw ma tànk ginnaaw yaakaar ni fi ci ngayen musa gay waxuma ne ci ñi nga xamne ni ci ñi ko ñëk jox seen bop ci la bokku waaye man dama ci am jaar-jaar boo xamante ni bii leer na waa dëkk bi yëpp parce que métti woon na ci man métti woon na ma dégg ko ma dégg mu ne ma man 81 laa wuy ji seex Moussa mu jox ma xam-xam bi na ma demal Ngayeen boo demee nga woote kon boobu boobu maa ngi fay Sokone année bi may dem Sokone man année bi may nekk Sokone Ane bobu mom lay jele xam-xam bi daru indi ko fi bima ñi mu jox ma xam-xam commencé liggey si xam-xam bi ñu ne a ah, ablay Touré di? gis nañ ko keut sang biram est-ce que dugg ci xam-xam bi sama papa oma bu ma ñëw ma laaj mako manako waaw duguna ci de munuma lo gis ci mom ba dug ci mom manako dama gis ci mom luma doy te yaakar nako motax ma jox ko man sama bop mu ne ma génn ci lima lay wax nii ca kaw la koy wax te funi la ko mën waxe te ñemina ko fi lama dalé genn ci manako duma ci genn mu ma ci genn manako duma ci genn mu ma baax na histoire la jour bu metti lawon ci man mu dékku ko ñu dal sama kaw Nama da nga da nga baye ma leen duma baye hatta xataa ru ruu gi tàggaloog sama jëmm ji moo may tax a fi ma ngay dund di noy ma ma leen duma baye yalla ci bopam moy ki nga xamne ni moy borom man moy borom xam xayna lolo la ma don ba xam fuma tollu waye bu yoyé passé eh? sama wayjur bu goor bi nga xamanteni bi momu momu non da nga genn mom momu gi sédé sédé bu rafet dama tok daayira bi ñu ñew bett man dañ may may daayira mané daayira ñu ne maaw ma la bisimila mu sol sama daal dem ci goor gi suma papa na ko oh, ma ma ne man de suñ daayira bi dañ maa may daayira ay jàng munu ma jàng ma munu ma fan man mu ci kër gi munu ma munu ma waaye baax na na leen bisimilah ma muuñ ree mu xuuteeg sama démb ma leen bisimilah boobu kuréel gi ni mu toll nii sax tolluwut ko wax dëgg rekk moo neex boobu mbooloo mi kuréel gi ni mu toll fi ñu toll nii sax booba toll wut fa ñu def fa kuréel gu fasaa gu gàtt te yaatu nag parce que siikar bi guddul ñu daaneel waxtaan waxtaan woo leer woo xam ne ñëpp a ci daanu ñu ni ñu nekkuñ ci ay naxe nëbbatuwuñ lii dee lañ ànd ak Ablaye Touré yàlla lañ àndeek moom ànduñoo moom ci tappale ànduñoo moom ci ay fen dëgg lañ ànd ak moom yàlla lañ àndeek moom ci yàlla it la woyu woon sang sëñ biram yàlla la def ci moom yëg naa ne sang bii ku ko wuyu ji ba mu def ci yow li mu def ci yow boo paree ragal fi dootu nekk ci yow. Euh, kon euh, Cheikh Biram Ba wax nga ko lim leen jox mooy baatu laa ilaha illallah. Uh, waaye laa ilaha illallah boobu uh, dañuy wax ne daanaka kenn ku si mën na ko weddi tudd waaye moom ndax dafa am leneen lum leen ci xamal ci laa ilaha illallah lu wuteeg maanaam tur bi kese. laa ilaha illallah bu ñu jox parce que dañ lépp lu am tur lu nekk am na jëmm kon laa ilaha illallah boo ko déggee nekkul ne tur baa tax jëmm jo lañuy ñuy xamal. ndaxte tur bi moom kenn ku si nekk yaa ngi am tur waaye laa ilaaha illallah moom jëmm ji la ñu xamal te mooy jëmmi yàlla bu ñu laa ilaaha illallah Cheikh Biram jëmm yàlla lay wane. kon jëmm yàlla rek si lañ mën a jàpp ba toll fu ñu toll nii tey parce que ba ñu ñëw si sëñ bi xamuñu woon dara ay lañu lañ xam xamuñu woon ñun ñooy kan waaye ba ñëwee si sëñ ba tey xamal nañu leeru laa ilaaha illallah xamal nañu ne allahu moom rek a fiy buur dara nekk fi ku yàlla. loolu rek la ñu xamal jëmm jëpp ak naka lañ koy dundee eh, bu duñ la joxee laa ilaaha illallaah nag lu des yow yaa koy eggale kon daf ñu jox la daf jox yàlla ba pare daf leen liggéeyee ji ko lépp loo ci am yaa ko amal ca bopp loolu la. ak sa bi limu woote mooy diine mooy jëmale nit ñi ci yàlla waaye du ci wax rek ndax. diine dafa am ñaari parti ndax doomu aadama bi yàlla da ko fee wàcce ne ko mu jaamu ko waaye jaamu boobu da ko cee tegal condition ne ko xam ma d'abord nga may jaamu nga yaa ngay jaamu mu ne la xam ma nga yaa ngi koy bëgg a xam mu ne la wutal wasila kon wasila boobu objectif am du lenn lu dul dimbale jaam bi ba mu jubóog boromam jubala jaam bi dimbala jaam bi ba lu muy jëf mu dëppook yàlla ci biir ak ci biti waaye loolu nag wax dëgg yàlla nit jàpp na na mënu ko defal boppam jàpp ma loolu loolu foog nga daje nit ku baax mu dimbale la ci xamal la suñ borom gindi la ci ba doo ko sikki sàkk ci dara waaye di ko jaamu ci jaamu bu sell te doo ko bokkaale ak dara moom boo xoolee waaye nag lim ko tënkee mooy ci yi nga xamante ni moom la yonent bu waxoon ne li gën ci li may tudd man ak ñi ma fi jiitu woon mooy laa ilaha illallah laa ilaha illallah boobu wax dëgg yàlla mu nekk li nga xamante ni moom la mooy sang bi di jël jox la ko ba leer googu noonu tabbi ci yow wala boog defar la ci biir la ilaha illallah googu ba nga xamante ni maanaam mate na ci yow mu gindi la suñu borom nga daan di jaamu yàlla te doo ko bokkale ak dara waaye wax dëgg yàlla jaamu ko teg ko ci jàngale yonent bi ak ci li nga xamante ni noonu la borom bi subhaanahu wa taala rëdd soo waxee mu dëppook alquran waaye soo jëfee mu dëppook sunna daanaka ci tënk daal mooy woote jàpp jaam ñi raxas leen ba ñu set tàbbal ci ñoom leerug laa ilaha illallah ñu mën a defaru biir ak biti ba kenn du ñu sikki sàkk dara seen seen borom ba lépp lu ñuy jëf rek mun na méngoog suñu borom daanaka boo xoolee daal woote bi foofu la tënk te yaakaar naa ne loolu mooy ësug diine te ñun ñëpp war nañ ci góor góorgóorlu bu baax a baax a baax ak saa. ak asalaamaaleykum mu mel ni tontu boobu tamit wax dëgg yàlla euh, leer na naa ñu suñ koy résumé daal li ñu mën a wax mooy liñ ci déggee mooy woote bi na moo ko waral mooy defar ab jullit. defar ndaw ba mu nekk jullit bu mat sëkk ci biir ak ci biti te loolu suñ ko waxee mooy defaru biir googu nga wax ak defaru biti gi ba nga xam ne lépp lu mu jëf mu dëppoo ak li yàlla suñu borom bëgg la ca la ca la ca topp muy ñuy def cant gi bi ñuy njëkk a cant gi man li ma fekkee man ñu koy njëkk organiser ci kër sang sax biram dañ daje sikar tam la sikar fanani sikar tanggal kafe nan cant gi biñ ko njëkkee def dañoo dajee fii fanaani sikar ba fajoon ñu tàngal kafe nan tasaro jamono yi di dox ci ba ca déwén sa ñu dell fi dajewaat yeesalaat ko na cant gañ doon def de lañ bëgg defaat ren bi ñu sikar kafe nan bañ xëyee ñu togg ay laax ñaareelu at bi li ma fekkee man ñaareelu at bi noonu la année bi ñu dem def ay ganaar def ay laax def ay kafe tasaaroo confiance mu ngi ñëw yaakaar mu ngi dugg te njëlbeen gi dañ noonu lii du dem lañ njëkkoon a wax ñu ne sàmm doomu sàmm la mum seng ci biram lolou lañ waxon ñu ne mom sam la doomu sam la bayam sam rek la ko xam xon tay mu taxaw naan fay xote yalla du dem mu japp rek at yu gatt ma genn ñaari at ma genn ñewat bi ma fekk tu tank yi ñu bari fekk ci ma ci ma gëna contane gëna am fit gën a nag am am bu ñuy ñëw fekk si ma si xam-xam bi wan ma ne ma yow ñoo la ko gën a bëgg man alhamdulilah sant naa yàlla bi ñuy demee ñuy def bëy cinquième année bi ñu def xar ba léegi ci nag lañ toll kon loolu yokkate la kon li Cheikh Moussa waxoon ne tànn naa leen ji naa leen da ngeen sax da ngeen meññi ñun ci meññeefi sang sëñ biram lañ ñun ci meññeefu sang señ biram lañ te ñëkk que Cheikh Moussa tànnoon ji ji danga sax danga nga meññi ñun ci ay meññeefu sëñ sang sëñ biram lañ te baat bi moo mate fu ne moo jote fu ne moo xàgg fu ne moo mat sa mooy ba bi nga xamante ni bii kenn mënu ko yàq kenn mënu cee dolli kenn mënu cee wàññi muy lu dëggu kon mu mel ni jigéen euh, léeg-léeg dundu yàlla dafay jafe ci moom dafay jafe ci moom parce que dafa nekk koo xamante ni dañ ko yilif voilà donc ah, est-ce que léeg du du am ah, ñenn ñoo xamante ni dañuy am difficulté ci ci ci dund xam-xam bi wala am ah, difficulté ci ci ut xam-xam. waaw niñ jigéen moom pour mu liggéeyee xam-xam bi lu jafe si moom parce que léegi jamono bi moo doy waar moo doy waar doy boo xamante ni dafa neex ba ëpp lu ci bëri aame dañuy dund dund gu neex ba fàtte yàlla sax am na looloo tax nag jigéen. pour yóbbu ko si yàlla lu jafe la waaye nag yàlla moom soo ko xamee xàmmee ko ràññee ko fépp foo taxawee fu nekk yàlla da nga fa war a gis moom nga fa war a dund rek la parce que yàlla moom suñ la ko xamalee ak fépp foo mënta nekk yàlla rek nga fa war a yëg moom nga fa war gis parce que moo nekk fépp moo daj fépp. kon lii yëpp yàlla la ak lu mënta doon lu ne yàlla la buñ ko xamee ba ràññee nag ñu jéem koy liggéeyee am ba fexe ba am si lu sëñ bi am waaye nag jigéen moom pour lu ko yóbbu si yàlla lu jafe la surtout dëkk bii nag lu ko yóbbu si yàlla lu jafe la waaye nag danga am fulla rek sa bopp am fayda am fit ñeme xam ne lu ñu jox loolu rek kay dëgg ñu liggéeyee ndax diine islam dafa nekk loo xam ne nit ñi dañ koy faral di jaawatle léeg-léeg voilà léegi su ñu doon wax lan lañuy ñuy jàpp ne moom mooy dëgg-dëgg diine islam. waaw ak kon islam de daanaka baat boo xoolee dafa firi boppam ndax islam mooy jébbalu waaye ci kan la ñuy jébbalu ak fan lañuy ñuy jébbalu njébbal suñu borom rek moo ko yeewal waaye suñu borom wax dëgg yàlla nit la tànn mu wuutu ko ci kaw suuf kon wax dëgg yàlla soo demee ci nit ki nga xamante ni. yegg na ci sunu borom wala na sunu borom moom ju ci nit kooku ngay jébbalu waaye da ngay ànd moom mu yóbbu ci sunu borom ba jébbalu sunu borom yóbbu ci toolu sunu borom bi xamal la nuñ koy jaamoo nga nekk ci jaamu yàlla islam daal boo ko bëggee tënk mooy. dafa am ñaari parti l'islam Amna sharia amna am waye ñaari parti yakarna ne ben bu ci nek waratu mën a dem baye sama kon jambi na fexé défer biram sétal sa xolam sétal xolam ba mu sel mu doog jëf su jëfo rek mun méngoog li nga xamanteni sun borom mom la doon xaar ci mom waye bo doxé ben parti bi rek dafay xaw a dafay xaw dafay xaw a matadi lool te diine wax dëgg yàlla du ci intégralité am ci lañ ko war a ci lañ ko war a ci lañ war a toppee mooy chari ak baatin aqiqa ak charia kon lislaam ñu ne mu ngi tënku ci juróomi juróomi ponk juróomi ponk yi rek daanaka dafa dafa leeral dafa leeral maanaam premier ponk bi rek dafa leeral daanaka diine mooy ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah laa ilaha illallah nee na nga seede laa ilaha illallah d'abord waaye seede boobu waroon nañ fa def taxaw seetlu ndax du tudd kese kon mën nañoo ne dëgg-dëgg lislaam ndege ci seede laa ilaha illallah ci la kon ginnaaw jaam bi ba mu seede laa ilaha waaye seede boobu bala mën a wér borom bi day dem jaam bi day dem a xam boromam su seedee muy dëgg su seedee muy dëgg ci laa ilaha illallah la tënku moo tax dama damay faral di dégg ñu naan diw baatu yéeféer kufur la jógee kufur mooy weddikat képp kuy weddi dëgg rek yéeféer la dëgg mooy yéeféer waaye tënkuur ci ñàkk julli wala ñàkk woor kon lislaam ci buñ ko mënee tënk mooy laa ilaha illallah waaye boobu nag moom lañ war a mën a seetlu ndax boo xoolee nit ki bu ko xasee ba tudd rek diine nga waaye laa ilaha illallah boobu naa fekk mënees na ko tudd ku gëmul yàlla mënees na ko tudd waaye est ce que laa ilaha illallah boobu laa ilaha illallah kon am na lu muy tegtal na laa ilaha illallah boobu am na mbir mu ci nekk laa ilaha illallah boobu yàlla daanaka mën naa wax ne léppam ci la ko ci lépp laa laa ilaha illallah yàlla moo ne laa ilaha mooy sama kàddu kàllaam yi wa anaa huwa man maay moom te man mooy moom moom mooy man te mooy sama kàddu laa ilaha illallah shahadatu lislaam mooy seede lislaam kon laa ilaha illallah mooy seede lislaam moom ngay leerlu ba xam secret ba xam ni ñuy jaamoo yàlla kon lislaam daal dëgg dëgg dëgg lislaam mooy laa ilaha illallah ak secret bi ci tënk daal loolu lañ ci mën a wax incha allah. dafa xaw a lënt si nit ñi. ci entre islam boobu ak charia boobu parce que ñenn ñi benn lañu ko def eh, ñenn ñi tamit jàpp nañ ne fi ñuy wutee islam foofu la ñuy wutee charia rek léegi nag yow soo doon tegtalee islaam guñ koy wut fan lañ koy wutee charia ku ko bëgg a xam fan nga koy wutee nan ngay tegtalee. waaw ak saay kon ñaari baati de ce sont des concepts cumulatifs waaye nag am na am na wute ndax boo xoolee Euh, lislaam man dama wax ne moom mooy cosaanu cosaani mbir bépp xeetu ngëm rek lislaam moo fi mës nekk ca maam Adama wala lu ko jiitu lislaam boobu moo ca moo fi mës nekk lislaam comme ni mu ko waxee woon bu njëkk ba mooy jébbalu ci suñu borom charia ak lislaam ñaari baat la yi nga xamante ni mënuñoo nekk benn waaye des leen tàggale ko ba bii ne fële la jëm bii fële la jëm déedéet mais dañ leen di àndale ñoom ñaar ndax si moom mooy du diine mooy keno bi moom moo koy moo koy couvrir waaye waaye dëgg-dëgg lislaam moom mooy mooy dëgg-dëgg lislaam moom mooy yegg ci yàlla lislaam pour nga mën ko dund dëgg lislaam dëgg-dëgg lislaam man dama ne mbirum biir la charia moom biti lay mën a tegtal léegi nag jaam bi biteem bu defaroo te biti gi defaruwut du baax léegi jaam gi pour biir gi defar pour foog biir gi defar biti gi pour mu defaroo biir bi foo mu defaroo léegi lislaam moom mooy yéwénal dëggi dëggi dëggi biiru nit ki mooy jaam bi day def ci yow maanaam lislaam mooy jébbalu suñu borom parce que boo jébbaloo suñu borom di am xal bi sàllim sa xol dina sel di nga am tawhid boobaa boo jëfee rek boo jëfee rek mu jub boo jëfee ci biti mu jub boo julee dina baax boo waree dina baax boo natee asaka dina baax da ngay gis nit di julli di woor li muy def te taxul mu baax waaye biram moo baaxul maanaam lislaam la amut dafa yeggut ci dëgg-dëgg lislaam waaye lislaam ku fa yegg doo yàqu lislaam ku fa yegg defaru ci biir ak ci biti doo def mukk bu méngoowul ak sunu borom lu xel mu sell nanguwul sax doo ko jëf kon foofoo manqué ci nit waaye charia bi wax dëgg yàlla su àndeek lislaam ci lay gën waaye moom kenn kese moom kenn kese dafay dafay dafay doy waar lool ndax jàmm ci sikki sàkk rek lay nekk du am yaqiin te suñu borom yaqiin nag lislaam dëgg dëgg dëgg moo la fa yóbbu waaye nag loolu sëriñ bu mat sëriñ boo xamante ni tarbiya la jàpp la xamal la suñu borom nga yegg ca am tawhid am dëgg dëgg lislaam boo jëfee xeetu charia yi loo jëf mu baax waaye su amulee rek dara mënta baax kon soo mu am ñaari concept la yi nga xamante ne mënees na ko tàggale nii mënees na ko tàqale waaye nag du lu ñuy du ñuy du lu bii dañ koy sànn parce que charia organisation la boo xamante dañ koy defee rek juste pour rafetalee ko taaralee ko lislaam charia daal mbubu lislaam la ak saayikun kon euh, loolu leer na yàlla yàlla nangu ziar yàlla maye wit ak wit moom mi nga xam ne dara lottu ci moom dara umpu mooy borom kaw di borom suuf di borom biir di borom biti. yàlla nañ yàlla jël téye ñu yëkkati ba ci kaw mu téye ñu boppam nga xam ne ku yëkkati ñëpp dañ la seen te ku mu téye doo daam yàlla yëkkati ba ci kaw mu téye ñu boppam ba duñ daanu ci kàddu barke Seex Musaa euh, lan ngay ñaax say moromi soxna yi ci diine islam ak euh, topp gi. sama morom ñi maa ngi leen siy ñaax fulla ak fayda ak fit loolu rek tax nga jàll parce que soo amee fulla am fayda kenn du la doo taxaw fee tudd baatu laa ilaaha illallah nit ree wala mu lay nga koy nangu déedéet fulla ak fit ak fayda rek moo koy wéyale xam ne lu ñu jox mooy dëgg ku amee dëgg waloo ragalee dara waloo tuutee dara loolu rek laa leen di ñaan benn question rek lañ ciy dolli euh, mu doon loo xam ne mënuñu wax ba bàyyi duñ ko wax parce que comme moom moo waral jotaay bi dañ leen laaj kan mooy Cheikh Birame Ba ak lan la représenté ci dëkk bi ak ànd ak mag mu Moussa alhamdulilah laaj nga question boom solo wax dëgg yàlla sang bi de xam naa ne tuuti nañ ci mën a ko leeral waaye liñ ci xam sax tuuti na sax ci liñ ci mën a bokk na ci lu gën tuuti na sax pour ñu mën ko leeral fii waaye sëriñ bi nekk na nit koo xamante ni wax dëgg yàlla tànneefu Cheikh Moussa la ci mbaaxam ci laa biiram ci nangoo jaamu yàlla ndax Cheikh Moussa képp ku ànd ak moom wallaahi te liggéey doo dem kenn di la xeeb ci dara foo waxee nit ñi nangul la foo jëfee ni ñi nangul la kenn du la mos a xeeb sang bi moom dëggi dëggi moom len rek mooy mission mooy defar nit ñi kon tey état lu mel ni adduna bi soxla nañ ñu mel nii ndax ñii su fekkoon ne état sénégalais. manam dimbali won nañ len baye won nañ len xel yakarna police ak gendarme sax sen sen sen sen sen liggéey du du am mel non ndax lan manam nit ñi kenn ku ci nek da ngay mel ni nga wara mel ndax buñ la yéré bay yar la ci yalla ba nga jup yakarna kenn lo waxati li nga wara def ak li nga wartu def kon serigne bi ci gatal nit ku bax la ko xamanteni dekk bi yeb ñokoy sédé fo dugg ñu ne serigne Birame mo bax sëñ Birame moo baax Cheikh Moussa fini mu ngi fi man lépp luñ may tegtal ci Cheikh Moussa daanaka boo xoolee ci moom da nga ko ci fekk ci laabiir gi ci dimbale nit ki ci ñaanal nit ñi yéene nit ñi loo xamante ni même ñi nga xamante du ñu taalibeem sax ñoo ko gën a naw fu génnee ñëpp a koy jox wor ma dëkk bi wallaahi du mag du ndaw du góor du jigéen nit ku baax la nit koo xamante ni. léppam lislaam la léppam diine la amul ci lan lu mu nekk wax dëgg yàlla te nag nekk ku ko matee tamit nekk ku ko matee koo xamante ni lépp lu nit di xaar ci waaju baax boo ñëwee di nga ko fi fekk mosu ñoo gis lu nit mën a jamee du ci saayir du ci baat gisuma lu ko nit mën a jamee méngoo naa biir ci biti ci li nga xamante ni moom la suñu borom moom la suñu borom. sant ci jàmm bi. ku ñuy ku safoo la koo xamante ni mu ñu bëri tey jii fuñ jaaxle ci moom la ñuy ñëw wallaahi diggante bi dëkk bi li fi defar ci ay ay diggante bu yàqu kenn xamul fu kër amee problème suñ demee bu fa waxee yàlla dimbale ko ci. diggante bu bëri moom daal daanaka tey boo xoolee école bi ñoo ko dañ ko jox mu mu ko diriger moo koy diriger. daanaka lépp lu naan diine rek daanaka boo xoolee ñëpp moom la ñuy wax moom la ñu koy jiital moom moom moom nit ñi dañ ko dooloo ci biir activité même boo nekkul taalibeem sax loolu sant yàlla la te loolu ànd ak Cheikh Moussa rek moo la ciy dimbale Cheikh Moussa ko defar dimbale ko te yaakaar naa ñi nga xamante déggal nañ ko ñu ngi ci tànk yooyu incha allah rabbi sëñ bi daal mënuñoo wax ci moom loo xamante lu lu lu wees loolu ndax daanaka li ngay wax yëpp ci mbaax googu rek lay delluwaat incha allahu rabbi jaajëf kon ñu ngi lay jaajëfal baax a baax Eh, amna solo li nga wax ci mom, li nga sédé ci mom mu melni ni eh, Cheikh Moussa jaaroon ci la jaar jaar jaar bëgg xam abonné wu ci youtube bu tv bësal na station bi ñu tàmbal la foofu nga abonné ndax ngay am vidéo yi ñu dugal chaque jour